wol woro bii xam nga lu muy indi mooy Sénégal nañu xoolaat nu ñuy tëggee leen. base programmatique dara boolewul leen lu dul tous contre Macky loolu rek leen boole tous contre Macky et il faut éviter ça gis nga ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd sur des bases programmatiques kon nag bu ngeen demoon assemblée problème bii du am maintenant nag il ça ça prouve que Yewwi Wallu c'est l'intercoalition n'est pas homogène l'intercoalition est loin d'être homogène kon nag nañu bàyyi di wax ne euh, nu mu tëti euh, benn Bokk Yaakaar 82 la am euh, opposition bi 83 déedéet nañ ne yeewi 56 vingt 24 loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg nañ wax sénégalais comme position assemblée ba nu mu tëddee. très bien yeewi Amadou 82. non non non yeewi effectivement donc ni nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar je reprends non laisse-moi terminer rapidement coalition Benno Bokk Yaakaar coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu amee 82 Yewwi dafay am 56 yaa ngi dégg ki nga xam ne mooy wàllu am 24. mais yéeme maintenant nag à chaque fois. yéeme ko lépp opposition la. waaw dama may expliquer non non non non. c'est la réalité non lii mooy wane ne. non dama dama bëgg a wane ne c'est pas homogène. non non non mais c'est pas c'est pas un ensemble homogène. mais d'accord Amadou merci Amadou merci très rapidement c'est pas un ensemble homogène bu ñu nax Sénégalais yi ku ci nekk da nga am say intérêt di ko défendre. ku ci nekk da nga am say intérêt di ko défendre bokk leen sax groupe parlementaire léegi nag fi may terminer et c'est très simple mooy. bi ma déggee un député am na ko wax sànq da Yewwi mu ne ñun ba ñuy dugg ci salle bi xamoon nañ ne motion bi du jàll man maa ko dégg mais attends finalement comédie la wala lan moo taxoon euh, mbir mi jóg il faut que ça soit nit ñi xam exactement lan moo xew parce que boobu on n'est même pas dans un régime parlementaire rek yoo xam ne dina waroon mën a am efficacité ba mu war a mën a am gis nga li am ba des mooy motion de censure dugal nañ ko mais pour man c'était pour amuser la galerie parce que du woon mujj fenn ñoom ñoom seen bopp taxaw nañ ne ñun xamoon na ne du mujj fenn kon nag lu tax ñuy mobiliser tout un gouvernement ñuy toog ay six heures de temps huit heures de temps di waxtaan te li ñuy waxtaan xam ah, ah, ah, nañ ne du sotti aussi nañ buy fooyee droit la bu opposition bi am quand même bu ñu waxee motion de censure euh, motion de censure il faut l'utiliser à bon escient Sénégal alors Amadou la question motion de censure yàgg yàgg na am ci Sénégal 1962 euh, sous euh, Mamadou Dia ñu ñëw 98 Mamadou Lamine Loum Dioum 2012 ak Abdoul Mbaye aujourd'hui encore euh, ko jàppee ne spectacle politique la parce que tout simplement mi ngi am jamono joo xamante ne ñetti fan rek moom moo ko jiitoo Amadou Ba def déclaration de politique générale am. xam nga sens. motion de censure mooy lan mooy daaneel gouvernement moo tax Birame Souleye wax na ko dafa waroon demander une question de. confiance voilà honorable du noonu un vote de confiance ah un vote de confiance waaw defu ko ci moom parce que mu def ko mais yéen tamit bu leen neexee ngeen laaj ko parce que déjà le premier ministre il a une légitimité la légitimité de l'exécutif donc si vous c'est qu'il ait cette légitimité de l'exécutif boobu mu am une légitimité parlementaire mais bu ko neexee mu bañ ko ut. on n'est pas dans un régime parlementaire. non dafa day day déjà c'est-à-dire loolu day gën a neexal affaire yi rek <laughs> loolu lañ doon wut. maintenant xam nga nag pour ñoom lii euh, euh, euh, premier ministre war na ko def n'est-ce pas. loolu moo tax ngeen si jublu bien sûr mën nañ ci am ndam. kon mën ngeen ci. il faut que ngeen éviter problème entre la l'intercoalition qui peut fragiliser. est-ce que yéen. depuis les législatives ba léegi toog ngeen waxtaan évaluer suñu toog depuis législative bi mu jeex ba léegi gisuma fu ñu réew ñëwee un deuxièmement bi ñuy voté budget bi est-ce que toog ngeen waxtaan amul dossier politique bi nga xamante ni wàllu ñoo ko signé donc sur ce dossier boo xoolee li nga xam ne Yewwi c'est cavalier seul c'est ça mmh. aussi la réalité loolu mooy dëgg loolu moo am c'est bon nag de mener le combat mais j'aurais souhaité sur des trucs pareils hmm. que ngeen di waxtaan yéen ñëpp sax vous pouvez animer de bonne foi mais waxtaan leen même bu fekkee ne leaders yi sax ñooy waxtaan que leaders yi quand gis qui se retrouvent di waxtaan parce que il faudrait pas que ñu que nit ñi dem ba ne ah ñii nag vraiment ñoom nit ñuy gëmloo ak li ñuy def sa diamétralement opposé ça il faut éviter confiance peuple bi franchement malgré tout ce qui s'est passé le peuple a voté la coalition, l'intercoalition. Mais sur un truc pareil, vous avez légitimé le Premier ministre sans pour autant ngeen voté. ça veut moom légitime légitimité boobu mu doon wër moom am na ko. te pourtant yéen voté lu leen ko. donc man je pense que motion de censure bi jaru ko woon. Mhm. aller on à un an des élections présidentielles. pas la candidat fii dina am candidat fële dina am mais montrer au peuple que nous nous sommes dans une logique de vouloir changer ce qui se passe dans ce pays. pour la prochaine fois. Ah, d'accord Omar ah, Abou Abou Diallo est qu'on peut dire que jaru ko woon amul cohérence alors que wax naa ko sànq rappeler ko que c'est pas la première c'est leur droit ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fare euh, ci opposition bi surtout ñu ko porté muy yeewi askan non jaru ko woon moom jar na ko parce que Amadou Ba moom war naa dóor pooj fecc <coughs> parce que euh, defal nañ ko tribune rentrée politique tem aussi gis courage am xam ni politiquement taxaw depuis l'histoire ça a été toujours politique politicienne de 62 à aujourd'hui képp ku ko mës a jël l'initiative est une initiative politique politicienne mais ça n'a jamais été des problèmes de gouvernance lële problème mu parti si ñoom Dia ak ñee moo dégénéré ba dugg fële ba Djibo Ka moo sentiroon ni Tanor mooy nekk ci ginnaaw lële Mhm. donc bi ci mun munti topp mooy règlement de compte bu doon am ci Omar Sa euh, ci affaire Hissène Habré bi l'affaire Aminata Touré ñu indi euh, Abdoul Mbaye mais Abdoul Mbaye ça lui permis sax sénégalais yi découvrir ko parce que Abdoul le fils de Kéba donc Abdoul mbay boobu tey bi mu taxawee foofu wax defanteeg ñoom ci politique ak waa PDS loolu la wane donc pour man man liñ doon wax de mauvaise politique mais ñu nous sommes pour la dépolitisation parce que xam nga lu tax mooy nan la ñuy dem ba vert parce que dama gis ci assemblée nationale bi am na de très bons députés mois j'en profit pour Samba Dan féliciter la ci benn acte boo defoon yow ak Ablaye Dembourou coow am na ci affaire ethnie comprendre duñu la bi nga ne séeréer yi ñooy sàcc ci kalante bi nga xam ne maam yee ko fi bàyyi balaa muy jeex génn nga ànd ak Ablaye Dembourou saw yéen ñaar ngeen defandoo vidéo kenn ku ci nekk wax ci séeréer lënkante geste boobu lu ma neex la dans cette législature j'ai découvert euh, de député Omar Cissé de de de de Rufisque tout à l'heure quand je parlais les textes et les comptabilités publiques yu yu yàgg yi nan lañ koy changé yi magistrat yi di sut nañu aussi nguuda libaas lay saar ñun nitu daara yi taxaw jëmmalal ñu fa diine ak alxuraan mhm. loolu am na fa léegi nag leneen li des mooy opposition Sénégal yeewi wàllu am na ku wàllu moroomam am na ku yeew moroomam bi ñuy dem élection <laughs> loolu mooy li am loolu nag définition bi ñoom ñoo mën a xam parce que waxoon naa la ni ñun ni ñuy demee au Sénégal faj mer la mer ngembu ànd xeex ennemi këma ñun biñ ko dundee balaa may bàyyi politique dama ne ce qui s'est passé en 2012 tout sauf baaxul ci dëkk baaxul ci démocratie front uni de l'opposition ku ko wax yaa ngi defaat stratégie boobu day delluwaat ginnaaw Sénégal li ma gëm. Mhm. mooy li am bi ma yoree pétition Khalifa Sall man côtoyé naa leen j'ai fait avec eux vingt ans leader boo mu ne la man du ko defee am promotion Khalifa Sall l' affaire aujourd'hui sur le parrainage gars yi dañ duñ ko fi bàyyi dem di xeexi ji parrainage bi aujourd'hui lii tamit li de pour man coalition bi jeex na bi ñu paree ba sénégalais yi jox leen quatre-vingt-trois l' opposition ak pratique pratique yi am ci opposition ñun ñëpp ci war a jàngat leneen li ci am mooy Pape Diop ci constance am wane na ni am na raison ci li ma gis man mooy bi muy wax ni logique bi ñuy nekk bu ñu demee dañuy continuer. très bien Abou oui. bi muy wax naan nii wii du ma bokk Samba du bokk Demba wane na ni aussi tamit luñ la wax ne la Karim Wade ñoom même 2019 sax bi ñu demulee élection dañu xam ne ni Karim demul demuñu. bi ñu xañee demee non xam nga xañuñu mais bu Karim moo leen intéressé. ba jaraloon na leen Macky ñëwaat. mais bu ngeen souteniroon keneen Macky Sall ah, day ñëwaat. deuxièmement bi ñu yegsee fii ci affaire Khalifa Sall. day nekk candidat. Karim day ñëwaat c'est un débat boo xam ne ñemewuñ ko aborder man li ma gëm nag c'est une très bonne occasion bi Abdourahmane Diouf doon wax mu am des débats à partir des candidats Mm-hmm. ñu bàyyi les rentes qu'on en profite sur les fronts des troisième mandats loolu c'est des faux débats les candidats qu'on veut découvrir Abdou Diallo avec leur projet et leur programme ak leur profil pour man c'est le moment ku nekk dem yoonam très bien très alors euh, euh, euh, mënuñu wax Serigne Saliou sànq peut-être Gallo mi ngi koy bañ que wàllu sauve le gouvernement mais est-ce que également lii du jox dëgg ñenn ñi jàpp ne le PDS le PDS ak le président de la République Macky Sall que lii nii mën na ko mën na ko jur parce que aujourd'hui wàllu quand même a sauvé le gouvernement ah PDS bu ñu jàppee ne loolu mooy seen yoon politique ils sont libres kenn mu leen ko kenn mu leen ah non mais tam Gallo waaw waaw mais Gallo tamit vraiment Gallo Gallo nag non danga may bàyyi nag ma wax rek non non non waaw mais bàyyi ma wax rek yow moom tàmm nga fu may waxu waxu PDS nga may kii mais bàyyi ma rek waaw mais bàyyi ma rek waaw waaw mais bàyyi ma ma wax rek nag bàyyi ma ma wax soo àndul ci li ma wax soo paree